il faut que y le Sénégal vous bëgg di falsifier histoire du Sénégal le Sénégal a commencé avec Pastef et l'avènement de Ousmane Sonko hein? il faut que nous arrêter Ben un point bi terme layam affaire affaire occulter quand un juge fait quelque chose en faveur il ni a eh, li en faveur Macky Sall le juge est corrompu voilà il est aux ordres quand un juge fait quelque chose c'est hyper grave scandaleux ñu c'est un c'est un héros le juge moi j'ai lu sa lettre de désistement xam l'air lettre phrase deuxième phrase bi dafa saga saaga yi ñu may saaga ak accusé yi may accusé te doon waa APR juge bi Donu état bi gouvernement moo saga juge ma désister deuxième phrase il faut que sénégalais xam ko ñu le juge a écrit noir sur blanc par ailleurs à cause du fait que ma première épouse est une djola, je demande à me désister pour ne pas faillir. Non, non, comprendre. Vous me coupez. Non, attends. non, attends. Oui, non, dame. Oui, oui, mais c'est ce eh, qu'il a dit. Il faut, hein. dame, non, non. il faut que eh, def la police. Non, Maï, Maï, mais, il faut que def la police des débats. Il faut, xoolal, il faut que def la police des débats. Parce que, bah, non, <laughs> bah, mais Amadou, qu'est-ce que aujourd'hui, xoolal, moi, j'ai pas le temps de venir ici di di wax ak dame wala consort su beugé wax ak dame feneen lañuy waxanté ni Fadel ni consort nous on parle au Sénégalais donc yow bi ngay wax Sénégalais pendant près de 20 minutes dam le bàyyi nga wax bàyyi wax et je vais revenir point par point pour démonter li nga wax mais dans l'histoire du Sénégal indépendant quand est-ce qu'on a vu un magistrat se désister pour des raisons ethniques donc souba suñu jappé qu'il euh, kilifa mouride, juge bi mën na ñëw ne non je me désiste parce que euh, Touba laa jébbalu wala ñu jàpp benn tijaan mu ne non je me désiste parce que euh, parce que euh, tijaan la wala nga nekk un animiste ñu jàpp kenn nga ne non non parce que sama yaay wala sama papa ci bois sacré bi lañ nekk. il faut que ñu waxante dëgg dama ne la au delà des casquettes moo tax man la affaire bi du kese wax li soo ko di def ak ñeneen li ñuy def mais ce ce juge là c' est un acte scandaleux choquant. Et c'est un précédent très dangereux. Très dangereux quand même. Très dangereux pour l'unité nationale. Mais ils applaudissent. Oui, oui, oui, juge. C'est faux. La lettre du juge, je l'ai lue. Lire n'a pas man man xam nga kenn net lu ma di wax dama ko lire damay désister parce que gars yi ñoo may takkal kot deuxièmement ma première jabar première épouse Djolala. alors qui manipule le sud qui manipule les ethnies qui parle de la Casamance c'est le président Macky Sall ñu tu ci un point mu le gendarme dont il est question man toute ma vie j'ai fait 25 ans de journalisme xamee nañ ma ci njombe yu bare mais parce que man ñi ma yar ay homme d'état lañu fa laa yaru sama mag Papia Mbaye diplomate de carrière Ousmane Tanor Dieng Bruno Diatta consort dama ragal kuy les fondamentaux de l'état lu mel ni ay gendarmerie ay magistrature mais comme dame li mu wax affaire yi buñ ko layam layamee <laughs> xam lan lan lan ci wara wax. C'est, c'est, cet officier cet officier dana fay cet officier <laughs> a dit beaucoup de contre vérité lan lañ commencé départ c'est le directeur de l'enquête c'est faux deuxièmement lan lañ bëgg a ci non dame, vous me coupez. Dame, non accepte la ko xam daam non man non dame, daam non allez, dame, allez, la ko ñaan xoolal en tant que démocrate ah, ah, nous sommes des démocrates dame. man je te reconnais que tu es un démocrate mais déglu nañ déglu qu'il était le directeur de l'enquête. C'est faux. Il n'y a pas qu'un seul capitaine à la section de recherche. Ils sont trois capitaines. Il faut que Sénégal ait Hamko. Deuxièmement, il dafa jël le bi pour ñu yóbbu ko principal ñu yóbbu ko <coughs> nu mu euh, c'est totalement faux man su le woon ma bañ dugg ci le secret de l'instruction wax les pièces c'est sur réquisition de la section de recherche faite par le commandant. Abdoulaye réquisition maa ngi numéro réquisition bi numéro service il faut que nous bàyyi des femmes sénégalais yi li ñuy deuxièmement ce gendarme là mais yaa ngi Soros il a fait huit ans dans la gendarmerie bi muy engagement décennal la duggee Lors dans la gendarmerie mooy fukki at ngay def Il fukki at jeex mënoo démissionner mënoo wax leneen mënoo wax leneen.

ku koy wuutu du fi nekk éternellement mais bu ñu fooyee yenn yi bu ñu fooyee ay magistrature ay juge taxaw fii di désister pour des raisons ethniques fan la am loolu mais fan lañ jëm on va où ay gendarme un officier de gendarmerie lié par un serment lié par la loyauté mu génne génne ay ay ay mbootu mbootu instruction et puis su ko génne woon sax mooy lu factuel ñu mën xam mais c'est des mensonges il a dit depuis combien de jours il a démissionné il vient aujourd'hui en se rendant à 15 heures na ko sénégalais xam tey vendredi la lettre de démission et il est aux arrêts de rigueur donc procédure judiciaire ça commence commencé il faut garder yi di bàyyi di foyn man li may wax ay droit la wax affaire. mais la motivation de départ. motive attends mais non non attends non non non non. non non non non man il faut qu'on soit clair. non euh, non non non non euh, non xoolal xam nga lu tax mais ko que xam nga lu tax du ma ko les motivations la démission du juge. non attends wax que xam nga lu ko wax. daam nañ dégloonte non daam daam xam nga soo bëggee soo daam franchement soo bëggee de xam nga xam nga sénégalais ñoo ñuy xool ñi ngi ñuy jugé nañ yow bi ngay wax pendant près de vingt minutes maa ngi la déglu ba daam soo wóoloo sa ay argument su fekkee ragaloo ma demoon te comme un château de cartes un à un li nga fi wax déglu ma xam nga lu tax mënu ma wax lan moo ko motiver parce que tey la déposé lettre de démission am 15 heures sama cobre journaliste ak samay dugg-dugg mayaguma ma xool lan la bind ci kii bi donc du ma taxaw fii ñu vaar ma ma ne lii moo ko motivé lettre bi suba génn mu wax ci leneen tontu naa la. yaa waaw non may dafa am point non bàyyi mu ma yeggale si gendarme bi ensuite beneen affaire il faut que ñu wa bàyyi benn wax xoolal il faut que ñu bàyyi benn wax Ousmane Sonko retrait plainte kooku foog ñu bàyyi ko xam nga lu dafa ñu bàyyi président s'est adressé à la nation il a demandé jàmm ak salaam boobu ba léegi gisoo ñun ñi nga xam ne mooy suñu kilifa ci zaayir kenn ku ne nag am kilifa ci baatin man sëñ Muntaxa laa yaakaar yàlla na fi yàgg te wér keneen ki yaakaar ku ne mais ñun ci biir Macky Sall mooy suñu kilifa dalal leen bàyyi coow déggoo fi ñu xëpp xakkaane non deuxième fois mais dama am na lu important bu ñu ko occulté il faut que la procédure judiciaire suive son cours ba ñu xam mais maintenant xam nga la ñu war a ci li ñu tënk ñun ci yoon en terme de crime même s'il y a retrait de plainte l'action publique continue lenn nous ne. nous donc nous ay Voilà, il y a ci gendarme Non, non non non non non non gendarme gendarme euh, d'entrée de jeu mhm. euh, encourager parce que de préserver les institutions mais de am ben affaire xam occulter mhm. que le gendarme ait eu l'impression manipule la justice. l'homme est le point de départ que le juge ait subi une persécution je confirme ce que tu as dit dans ta lettre que le juge subit une euh, persécution que le juge euh, d'emba notre danger affaire bi désister ou l'eau tamit c'est condamnable mais gendarme le départ dafa am l'impression que top l'impression que dañoo bëgg a souiller l'honneur de la gendarmerie loolu mooy le point de départ est-ce que loolu tamit mën nañ ko occulter man loolu gisuma ko on n'explique pas ce qu'il a fait loolu gisuma ko ci premier argumentaire parce que may mun a man journaliste laa ba léegi politique tàqale bu ma ak journaliste damay gëstu di lire taalal sama nopp di wuti info man du ma toog ci ay ondi ondi premier poste su gendarme bi nañ ci moom moo wax bàyyil ma yeggale le premier poste bi mu génnee waxu ci ne ay affaire injustice par rapport ak kii dafa ni di ñi dama santé ni ñi ngi may topp et j'ai peur pour ma sécurité patati patata alors que c'est totalement faux et je le dis Sénégalais il n'a informé aucune hiérarchie je le dis aujourd'hui officiel il xam hiérarchie non mais je nga affaire parce que gendarmerie le magistrat bugguma ci suux trop. mais dañ ko non que moom moo divulgué waaye yow dama ne la may mun a moom moo sennal PV yi renseignement yi di ko topp may mun a dañ koy déglu gis nga fii gendarmerie dafa am lu ñuy doxee ak police ak leneen état xam nga gars yi xamuñu état yàgg ci mbedd mi aussi c'est grave soo duggee ci état xam état état ñëpp la ñuy surveiller ci yenn affaires yi gendarme mais pourquoi ñooy ngay dégg ñuy wax la police des polices lan mooy la police des polices. ou la sécurité militaire. non la police des polices Ils surveillent. gendarmerie a na gendarmerie des gendarmes Ils nous donc loolu ay waxu dof la nga xam nga man li ma choqué mooy ngay ñëw di wax ay affaires yu du mais yow d'accord, nga capitaine Touré nee depuis plus d'une semaine j'ai démissionné j'ai rendu ma démission. il n'a jamais démissionné. il n'a jamais démissionné Il a démissionné bi il ñëw ñu ko arrêt de rigueur procédure disciplinaire lañ ko dóor dugguñu sax ci affaire utilisée arrêt de rigueur denc nañ ko ci mbam mi tay lay doo ko joxe lettre am duma wax nak ci motivation démission même su fekkee amna man sama idée ça sama perception bop sama conviction bop par rapport ak li motiver parce que liñ ci xam lepp duñ tok fi diko wax mais au fur et à mesure dina leer dina leer bay waxuma ko fi waxu dina ne leer donc ma ñëw ci beneen point bu ma dégg. mais révélation yi mu def ci enquête bi aussi. <laughs> mais lan la révélé dama bëgg ñu wax ma lan la révélé. limal ma alors waaw xaaral. waaw moom nee na. Mhm. Adji Sarr daf ko présenté ñaari pièces d'identité. waxul dëgg. waaw waxaaral waaw du la nga xam lu tax ma waxul dëgg la waxul dëgg dama lay expliquer lu tax waxul dëgg. parce que ah. mu ne yow waxul dëgg rek ci affaire politique. Adji Sarr. c'est malaisé ça bëgguma dugg ci fait. pour Adji qui est présenté cette section de recherche il faut que Sénégalais oublient ubbi bay manipulation elle a plainte elle a été reçue par le commandant Beng, à qui elle a remis sa pièce d'identité une pièce Mako Wafi. nañ ma woon fan la aji Sarr mais ah, ah, comment saa waay saa waa su fekkoon Adji Sarr dafa ñëw ñoo reyaari présidente yi xanaa kay dina ko photo sax whatsapp denc kay su coow lu tuwee mu ne wala dafa benn bi baaxul benn pièce la non ah, Sénégal fii xoolal bu ñu bu ñu doon Sénégal am direction de attends non xoolal eh, may il faut que ñu respecter état wu Sénégal ak administration dafa am lu ñuy wax di mooy direction de l'automatisation du bàyyi ma bàyyi ma wax la non daam déglu ma wax la bàyyi ma wax dañu am daaf nañu respecté Sénégalais yi parce que loolu c'est même grâce ça dit comme il y cinq quatre d'entrée loolu yëpp du coow li xam nga en fait non et puis damay wax lu contradictoire loo xam ne Sonko neen dafa yàkkamte dem ci procès bi moo ko woo la wax ko yéen ngeen na leer dafa am complot président tej wax bi ne leen jàmm nañu dal je vous ai compris je vous ai compris mooy président gis na li nga xam ne ayib na ci côté am si ay ñooñam li mu yor ayib na ci dëkk bi moom moo ci wut ay saafara man duma ci wax mais procédure judiciaire bi day continuer waaw. ñoom ñu ne nañ ko arrêté. nañ ko arrêté mais non attends si loolu ngeen wax da ngeen ne nañu abandonné. parce que dañ ñu demandé ñu arrêté non non non attends loolu il faut ma leer ko. non non du ma ko nangu waa may mun a du ma nangu daam di dagg sama émission bàyyi ma ma kon ne sama wax. non xoolal daam daam soo jëlee parole dama lay dagg bàyyi ma kon ne sama wax. donc léegi xoolal bàyyi xoolal bàyyi ma léegi xoolal xoolal xoolal dani bu leen bu leen tàmbali bi xoolal bàyyil ma yeggale bu ngeen bàyyee lépp ci lan lan mooy seen exigence ñooy taal dëkk bi c'est la c'est eux qui brûlent le pays. may ma. mais dañuy toog fii di wax nag dañuy toog fii di wax nguur gi. may mun a attends nga ñii. non dama ko may a may mun a je li ñuy def dafa yomb. depuis le laa wax nañu dégloonte. nañu dégloonte ndax xam nga euh, nit di wax ñu dagg ko kenn dàquma ko débat bi yàqu. Eh, non non non non dagguma la. non waaw léegi ma ma ñëw ci benn affaire affaire yu ñuy détenu yi ñuy wax détenu politique consort man. xam nga maa ngi su fekkee lu mu dàgg ma franchement daam aussi non attends mais j'ai pas posé que lu ma wax nga répété ma bàyyi ma dañuy détenu politique moi j'ai fait la part de choses.

lan lañ def jël numéro man partagé ko réseaux sociaux yi da am WhatsApp ci vous mais ces gens là c'est des voyous c'est pas des c'est pas des détenus des voyous il faut que la loi soit su leur soit appliqué de manière rigoureuse non bàyyi ma yegg non non non mais yaxam nag jeexalal lu tax may jeexal kii wax may jeexal non damay wax damay wax non xoolal dernier xoolal xam li may mujjee li may mujjee moo gën a metti parce daam maa ko tey piège xëcc ko mu démontrer ma les éléments du complot damay ñëw foofu gis nga waaw mais daaw léegi beneen affaire dama koy wax sénégalais yi dama koy wax sénégalais yi ah. <laughs> non non daaw daaw arrêté yow wax nga vingt-deux minutes daaw dam ñoom da nga leen dégg ñu woy président Macky Sall ah adduwul sëriñ si respecté wul chef religieux yi waaye mais sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér tey lañ soog a intervenir. bërki Dembo Ndiaye les les envoyés des chefs religieux bi ñu fa demee ba ñëw kan moo continuer di maintenir ay marche Macky Sall wala ñoom kan kan moo respecté wul chef religieux kan moo toog ba tey veillu marché bi ngay wax bàyyi non non non non. léegi c'est différent. non ñooñu c'est pas les chefs religieux. c'est pas la délégation eh, des chefs religieux. non il faut qu'il respecte les gens. Sénégalais yëpp déglu xoolal pour Sénégalais yi déglu daam dafa la pièce principale qui prouve qu'il y a complot parce que Malick Sal a dit publiquement qu'il a informé le président te boo plainte amagul moo ko wax mm-hmm. daam affaire le 3 février le commencé ministre de la justice le 26 février la taxaw assemblée. non de gloire le 26 février. Mhm. entre le 3 et le 26 février il y a eu 4 conseils des ministres. 26 février le ko daan wax la loi j'ai informé le président de la république c'est faux c'est faux. le mercredi suivant xoolal sénégalais nañ ma dégg nañ ma xool nañ xool c'est faux nii la ñuy def. dañuy dañuy lambar lambari ci xelu nit ñi di leen tour la dem c'est faux. oui immédiatement la wax. c'est faux génne ko. dafa non non li ko wax j'ai informé le ministre de la justice a informé immédiatement l'information bi ñu koy plainte bi amul. ma wax la Maymuna Maymuna Maymuna Maymuna Maymuna j'ai informé may xolal j'ai informé le président de la République après avoir reçu une note écrite du procureur de la loolu la wax. Oh. mais léegi ñii ñoom ñooy wax léegi ñun Macky ay ministre am kañ lañ ban kañ lañ ko war a informer non may dañuy wax benn xam nga. xam nga affaire bi c'est xam nga se quoi man débat yeegi yëpp sax ah c'est pas nécessaire parce xamul tax man je suis tellement rassuré gis nga affaire bi c'est un château de cartes gis nga au fur et ñuy dem chaque jour di nga gis fan yi di daanu benn par benn. ci côté yi ñu doon wax ak ñi si nekk ak ay jarbaatu Malick Mbaye ak ay kii. ci côté mais attends. loolu lépp lépp dëgg. si ndaw si c'est-à-dire soo dégloo rek Ndeye Khady Ndiaye la tudd xaw ma. waaw euh, ndaw soosu. li mu lu leer la. li mu lu leer jox taxaw ni merci numéro ah, non non il faut qu'on arrête il faut arrêter la manipulation. maintenant léegi le fait que ñu ñëw di ko jéem a ger yow loo ci wax. ñu jéem a ger kan. ndaw si fan lañ ko geree. ah